rom saar ñett yawut bi nag ci lan la rawe ku dul yawut te xaraf lu muy jariñ raw na ko fu nekk ci bu jëkk yawut yi la yàlla dénk waxam bu fekkee ne am na ci ñoom ñu ñàkk kóllëre ndax loolu mën naa fànq kóllëreeg yàlla mukk su ñépp nekkoon ay naafeq du tere yàlla nekk dëgg moom la mbind mi wax ci yàlla ne loo wax ñépp ànd ci te ku layoo ak yow nga yey ko su fekkee nag njubadig nit dina feeñal njubteeg yàlla lu ci seen xalaat wax ji may bëgg a wax nag léegi waxi nit rekk la maanaam ndax kon yàlla àttiwul yoon ci li muy daan ku jubadi mukk ndax su yàlla jubadi woon naka lay àttee àddina si waaye nag xanaa dina am ku tontu ci loolu ne su fekkee sama ñàkk kóllëre gën naa yëkkati kóllëreg yàlla di yokkit ndamam lu tax kon yàlla di ma teg ba tey bàkkaarkat ba di ma àtte lu tax mënunoo wax ne nanu def lu bon ngir lu baax génn ca am na sax ñu nuy tuumaal di wax ne noonu lañuy waare waaye ñiy wax loolu ndaan gi ñu yelloo dina leen dal kon nag lu nu ci war a wax nun yawut yi ndax noo gën ñi ci des mukk ndaxte wone nanu ne nit ñépp ñu ngi ci nootaangeeg bàkkaar muy yawut yi mbaa grek yi moom la mbind mi wax ne ku jub amul du kenn sax amul kenn ku xam yëfi yàlla mbaa kenn ku koy wut ñépp jeng nañu ba kenn amalatul yàlla njariñ kenn du def lu baax du kenn sax seen puta ngi xasaw ni meddum ñetti fan seen làmmiñ làggi ci njublaŋ te seeni kàddu aay ni dangaru njàngoor duñu génn ci seen gémmiñ lu dul ay moolu ak i xas ñu sawar lañu ci rey nit fu ñu jaar foofa yàqu ak musiba xamuñu yoonu jàmm te ragal yàlla sori na seen xol xam nanu nag ne lépp lu yoonu musaa wax wax na ko ñi nekk ci yoon woowu ngir gémmiñ yépp ne miig te waa àddina sépp jaar ci àtteb yàlla ndaxte sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla solom ndigal yi daal mooy wone bàkkaar waaye léegi nag yàlla feeñal na nit mën a jube ci kanamam ci lu sexul ak yoonu musaa dara waaye ba tey yoonu musaa ak waxi yonent yi seedeel nañu ko jub ci kanamu yàlla gëm yeesu kirist rekk a koy maye te képp ku ko gëm bokk nga ci ndaxte ñépp yem fa kanam yàlla ñépp a bakkaar ba joteetuñu ndamu yàlla waaye ginnaaw kirist yéesu dee na ngir jot leen yàlla ciw yiwam mën na leen a àtte ni ñu jub ci dara wàcce na kirist mu nekk sarax ngir yàlla baal na sunuy bàkkaar jaar ci deretam ji ñu tuur te ngëm rekk moonu ciy boole noonu yàlla firndeel na ni ku jub la donte sax dafa muñaloon ñi jiitu jamonoy kirist ba jéggal leen seeni bàkkaar kon ci jamono ji ñu ne yàlla wone na bu leer ne ku jub la di àtte ni ku jub képp ku gëm yéesu te ba tey dëkk ci njubteem kana mën bàkku nag ci kanamu yàlla kenn lu ko waral nag xanaa sàmm yoon déedéet ngëm rekk ndaxte danoo dëggal ne ngëm rekk a tax yàlla di àtte nit ni ku jub waaye du sàmm yoon walla ndax nag yawut yi rekk la fi nekkal ndax nekkalu fi it ñi dul yawut axakay ginnaaw yàlla kenn la ñépp la fi nekkal ñi xaraf dina leen àtte ni ñu jub ndax seen ngëm ñi xaraful it dina leen àtte ni ñu jub ndax seen ngëm xanaa kon ngëm day fanq yoonu Musaa mukk da koy gën a dëgëral sax